salaamaaleykum sëñ bi tur bi naka la. waaw tur bi la daral Kër Massar. d' accord yaa ngi daral bi depuis kañ. waaw yàgg naa fi def naa fi nag man un an quoi. Ah, maximum un an léegi xar yi ren moom am na wala amul. xar am na waaye cher na. cher na xar am na bu ñu nee xar dafa ñàkk mooy si seeraay bi la rek. dëgg la dëgg la bu ñu dafa ñàkk moom si seeraay bi la rek. xar yi ñaata la tàmbalee. waaw comme catégorie yi nii ñu leen jaay deux cent quatre vingt. catégorie yi ñu leen jaay

di xool seen xar di xar yi tooyee ñun dañuy tooy bu ñu lekkul duñu lekk xam nga te nit ñi seen kër la ñuy toog yor seen cent mille franc xool ngan di xar bëgg ko waxaale xor xar bi jar trois cent mille nga bëgg see def cent mille ma loolu àq la xam nga noonu ñun mënuñu ko wax ñun niñ koy dundee xam nañ ko ñun client yi day ñëw fii di jooy pour ñu jaay ko xar buy jar cent cinquante mille nga jaay ko ko cent mille franc loolu mënul ne saako ngooñ mu ngi jar cinq mille instant bii. ah te ñun suñu gerte ni xar yi ni ñaari saaku ngooñ lañuy ñuy sotti par jour 10000 francs par jour 10000 francs franc bu ñu lekkul mooy loolu. xar yi yéen leen yar wala da ngeen dugg si àll bi. dafa waaw dafa am yoo xam ne dañ leen yar yii nii da leen dem ba Misira ñu jënd leen ñu indi leen waaw dañ leen dem foofu si marché luuma yi ñu jënd leen ñu indi leen Dakar fayal leen transport ñu ñëw fii yaa ngi comprendre. ak ak frontières yi ñuy tëj aussi. waaw boobu non bi yii ba ba ñu ibbee affaire yi lañ dem bañu ibé affaire lañ dem jëli leen taf taf ñu boole leen ak yi ñu yar xaru yar yi moy yi yew ni dal moy yi yew ni waaw non la démé dal mais xar mom buñ né ñak na rek manam sa seeraay wala la waaw sa seeraay wala parce que boo yoree cinquante mille ngay dem xol xaru 50000 nga dem mboté bu ndaw nga dem jënd ko mais do xol xar bu jar 200000 nga ci def 100000 francs lool mën ta nek yow gisal nga sa bop xar yi xam nga yor xar yi présentable lañ yor ay xar yu baax lañ yor ah noonu la demee nag dakaar moom am na xar ndax kër goo dugg fekk fa xar. Adama Ba yaa ngi ci daral Kër Massar léegi xar yi dañoo bëggoon xam ñaata la ñuy tàmbalee. xar yi y' a tous les prix y' les hmm. léegi ku amoon père de famille bu am cinquante mille francs ñëw ne daa bëgg xar est ce na am xar boo xam ne mën na ko rey si waaw mun na am xar mais bu tuuti lay doon de bu tuuti lay doon moom cinquante mille moom tey ba mooy su nit ñaari nit sax mun nañ ko lekk.

bon waaye daal ren moom doxagul loolu daal. yéen dañuy yar en même temps dañuy jënd xar yar di jaayal. soo waaw fii euh, man maa ngi jëlee canaba maa ngi jëndee canaba yi des Kaolack laa koy jënde waaw laa jógee waaw frontières yi ñu tëj si bon yi ñu tëj moom bon heure bi da doon fekk xar yu bëri ba doo mun a dox fii waaye bon ren moom gis nañ ne daal. frontière dina xaw a empêcher nit ñi ci benn côté quoi ah, loolu moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. xar waaw xar moom c'est trop cher moom xar yi moom wax dëgg yàlla seer nañ. bi ci gën a yem moom waaw ça dépend ñun moom suñuy xar moom man yi ma am yi gën a ndaw cent mille cent trente ba deux cent cinquante mille ah, genre xar yooyu daal laa yor bon aw ma yeneen xar daal yu yooyu.